bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man itabaahum bi ihsanin ila yawm iddin bokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw nu yow bi ñu ngi leen ziyaara ci bis bi tedd bi di ñaan borom boole ñu gëneelul bis bi ak barkeem nangul nu mbooleem jëf yu baax jéggal nuñ mbooleem suñu rëcc rëcc gannaaw loolu waxtaanu tey wi dafa jëm ci leeral loo xam ne xam ko lu am solo la ndax danoo nekk ay jullit di ay taalibe am kilifa am wéeruwaay am royteef mu di ñu joxañ ci aw yoon woo xam ne moom lañu war di xool war cay dox yoon woowa nag ngir ñu mën koy gis di ca mën a dox day laaj ñu xàmmee ko bu baax ba lépp lu jiyoog moom ñoo xam ne bokkul ci yoon wa boo ci xasee nekk it ba mu wóor leen yaa ngi ci kenn bañ la cee mën a wàcce di la yóbbu ci wereen yoon moo tax ñu bëgg a waxtaane tey li ñuy tuddee mazhabu ahli sunnati wal jamaa sëriñ bi daf ñuy wax ñu jox ndigal li ñu soññ ñun jullit yépp rawatina ci ñun ñun taalibe yi topp ci moom di wax ne wal yaalaman kullu zakiyin wa balit anna allazi yuxaalifu alxaqa tarit أشهد الله إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام البليد أن والفقه عن تصوف إذا ابتدى المريد بالتوحيد منتهجا مذهب أهل السنة مع الجماعة نجا من فتنه ñaari bay njëkk yi dafa wax ne képp euh, ñi am xel ak ñi amul xel ñëpp war nañoo xam ne ku jëm ci sunu boroom te jaar ci yoon wu dul yoon wii dëgg dañ koy dàkku dañ koy dàq du yegg ci sunu boroom lii dëgg nag mooy képp ku jëm ci sunu boroom danga war a gëm yàlla di ko jaamu tey rafetal gëm ga ak jaamu ga te mooy liimaan da tënku ci liimaan ak lislaam ak lixsaan te tënku googu balaa wér da jàng xamxam yi nga xam ñooy jàngale eh, ñetti xaaj yooyu nga war a jàng tawxiid bi nga xam mooy jàngale ngëm jàng fiq bi jàngale lislaam jàng tasawuf bi jàngale lixsaan te yooyu yëpp boo koy def nga dugg ci biir ngir mi nga xam ne mooy ngir mi nga xam ne ñi ëpp ci mboolam jullit mi ca gannaaw yonent bi ba léegi sallallahu alayhi wa sallam ñi ëpp ci mboolam jullit mi bi lislaam sosoo ba léegi ci yoon woowu lañu la ñu nekk te mooy yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon moo ko ay saxaabaam ci wàllu pas-pas ak ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu defar xol ak i jikko ngir leeral nag ci tënk rek loolu ñu tuddee mazhab ahli sunna wal jamaa te mooy yoonu yoon wi nga xam ne ñi ëpp ci mbooloom jullit mi ci àdduna ba lislaam soso ba léegi ci ñu nekk te muy yoon wa nga xam ne mooy wi yonent bi nekkoon ak ay saxaabaam sallallahu alayhi wa dañuy wax rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu delloo ci boroomam ba Seydina Abubakrin wuutu ko ba wuy ji boroomam Seydina Omar ko ba wuy ji ko ba wuy ji bi ko Seyd bi Seydina Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiya anhu wa an jamii xulafaai rachidin wa an jamii sahabati rasuli sallallahu alayhi wa sallam eh, moom Seydina Ali ay ay ay juyoo ay fitna ay ñàkk ak juyoo daa am ci biir jullit yi ba ay loo juddoo ca bi jaamaar yooyu amee nag am ab kuréel ci mbooloom jullit mi ñoo xam ne ñoom dañoo beru teqalikook mbooloom jullit mi gën a bari dem ber seen yoonu bopp muy kuréel bi njëkk a wuuteeg mbooloom jullit mi ci taarixul islaam ñu leen di tudde alxawaarij ñoom ñu gis ginnaaw ak juyoo daam ci biir julli daal ba ñuy xeexoo léegi kon nañ bàyyi rek far euh, kenn bañ bañ jiitu ginnaaw ku jiitu kii mooy jiitu kii du jiitu la ñuy xëccoo kon nañ far bàyyi njiit ci boppam rek bu ñu wut njiit daal nañ bàyyi noonu rek kenn bañ a kenn bañ yilif kenn kenn baña a topp kenn loolu mooy cosaanul euh, kuréel booba juyoo yooyu di dox di dox ba yàgg euh, ña doon jaamaarloo mujj mel ne jaamaarloo ba jeex na ginnaaw bi nga xamee ne Seydina Xuseyn ibnu Seydina Ali ibnu Abi Talib faat nañ ko ca Karbala ki bokkaloon lépp muy Seydina Xasan moom ne daal laajatul xilaafa gi bàyyi na ko ki koy ki koy xëcc muy Seydina Muawiya léegi yëf daal di jeex mbooloom jullit mépp mépp ci mbooloom jullit mépp ànd ak moom ba mu des kuréel bu njëkk bee nga xam ne ñoom ñoo génnoon beru euh, mbooloom jullit mépp nag jàpp ne kon euh, daal xilaafa gi benn baat la léegi euh, kii fi des mu Seydina Muawiya moo ko yor ba ñu demee ba ca kanamaat am meneen mbooloo mu jógaat ne daal xilaafa gi dañ ko seetaat ndax daal nii ñu ko doxalee ba mu tàmbalee ba léegi teguwul ci yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi fi jógee ki ko njëkk a wuutu waru ko woon a wuutu ki ci topp noonu ki ci toppaat noonu ki ci topp ba ci ku ñeenteel ki daal mooy ki waroon a jiitu ku ñeenteel ki nga xam ne mooy mbokkum yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy ki ñu waroon a jiital ceg njàlbeen ñi fi jaar ñëpp jaar gi fi jaar tegul ci yoon daldi di beru dox nag ngir dëggal loolu loolu nag ay gëm-gëm yu bari mujj ca juddoo ñoom ñu gëm ne xilaafa gi warul doon lu jullit yi waxtaane ba juboo ci samp ku leen soob waaye ak donnante la war a doon yonent bi sallallahu alayhi moom la yàlla yónni woon lam defoon ci moom ci aw xe ci deretam la la la la topp di wéy kon ñi setoo ci moom ñooñ ñoo ko war di wuutu saa ne euh, kon yoonu mboolam julli mi ci des nekkul ci xilaafa gi euh, mbooloom julli mi ëppoon nag jàpp ne xilaafa gi ni mu doxe naka jëkk noonu la waroon a doxe yonent bi sallallahu alayhi bi muy dem waxutoon ne na ko kenn wuutu daa bàyyi mbir mi noonu bàyyi gi noonu mooy firi ne kon dañ ko bàyyee ne ginnaawam nañ ko waxtaane luñ ca dëppoo rek noona la waaye du loo xam ne ci cosaani diine yi la bokk ba alquran war a wax kii wuutu yonent bi wala sunna di ko wax ndax mbirum diisoo la ak waxtaan rek mboolem mi ëpp ci mboolem jullit kon loolu lañ gëm ci xilaafa mboolem mboolem mi gëm loolu ñëpp nag te mooy ñi ëppoon ci mboolem jullit mi ci jooj jamono euh, ñoo ñoo tudd mazhabu ahli sunna wal jamaa mu am ñaari kuréel yu wuuteeg ñoom kuréel bu ñuy tuddee alxawaarij moo ña nga xam ne ci xilaaf ak Seydina Ali lañ bàyyi woon ñoom génn génnu topp ak ñi nga xam ne ginnaaw bi nee nañu xilaafa gi ni mu tëddee woon du woon yoon ñu leen di a Chia waaye saa su nekk mbooloom jullit mi ñoom ñu ngi tënku ci benn baat eh, toog luy jéem a nattale yoon wi yonent bi sallallahu alayhi jaaroon ak i saxaabaam ginnaaw bi loolu doxee ay jamono ay kuréel judduwaat ne ñu ñu tudde al mu'tazila ñu ñu tudde al qadariya ñu ñu al jabriya eh, waaye yooyu yëpp ay kuréel lañ yu ndaw ndawaan yoo xam ne ñoo feddi géewu wuuteeg mbooloo mi ëpp ci mbooloom jullit mi bi lii amee nag ñu nekkoon kon mi ëpp ci mbooloom jullit mi liñ jàpp loolu mooy yoon wi yonent mi nekkoon sallallahu ak saxaabaam te mooy yoon wu jub wi loolu lañ tuddee mazhabu ahli sunnati wal jamaa kuréel kuréelaan yi nga xam ne ñoo feddi géewu ber seen yoonu bopp wuuteeg mbooloo mi ëpp ñooñu lañ tuddee ne ñooy ahlul bidaat yi moo ñu ne ci bidaa mooy ñi sos lu yees ci diine ji bëgg ku cee boole te bokku ci euh, wuute yooyu nag bi mu amee daa dañoo dem ba mbiri pas-pas dugg ci mbiri kilifteef rek ci la tàmbale woon kuy wuutu yonent bi ku ko war a wuutu ak ku ko warta wuutu wutu la tàmbale woon di mbirum kilifteef rek buñ ko mën a wax ci jamono mën nañoo wax mbiri politique ci wax yi waxinu jamono rek waaye nag dem nañ ba mujj ay pas-pas dugg ci mbirim pas-pas dugg ci mbirum jaamu yàlla dugg ci mbirum nu ñuy defare jikko itam dugg ci ah, waaye mbooloom mi ëpp ci mbooloom jullit mi ñoom ñu ngay tënku ci pas-pas yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci alquranul karim leeral ko ci ay ci sunnaam boroom xam-xam yi yi topp ci ci ginnaawam itam di ko leeral nit ñi di ko jàngale ci wàllu pas-pas bu dee ci wàllu jaam ni ñuy jaamoo yàlla it mu am mbooloo boroomi xam-xam yoo xam ne ñoom it dañoo leeral na ko yonent bi jàngale woon ci alquran ak sunna euh, ñi nga xam ne tam ñooy yar nit ñi di leen jubbanti defar seeni jikko ak seeni xol ñoom it boroom xam-xam yooye te bokk ci mboolem mi ëpp ci mboolem jullit mi ñoom di jéem a xool yoon wa melo wa yonent bi meloon solo alayhi wa sallam ay saxaabaam seeni jikkoog seeni seeni doxin nam meloon ñoom it ñuy jéem a yar nit ñi ca melo woowa di jéem a xool yoon wu ñuy jaar ba loola mën a sotti loola tax na ci biir mazhabu bu sunna wal jamaa ay kuréel juddu ci waaye kuréel yëpp nag ñoo bokk nekk ci wenn yoon am na kuréel yu juddu ci wàllu tawxiid maanaam ci ñi ñu jàngale gëm yàlla ñetti kuréel yu mag juddu ci biir mazhab al sunna wal yoo xam ñépp nag ñoo bokk pas yi ñoom ñoo ko bokkle mooy pas-pas yu dëppoog na ko yàlla jàngale ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci sunna ñetti kuréel yooyee ba ca gën a rëy gën caa yaatu mooy kuréel bi ñu tuddee mazhabul ashari ba ca toppaat mooy maturidi amaana beneen kuréel boo xam ne moom it daa wuteeg ñaari kuréel yi ci ci ci ni ñuy déggee ni ñuy jàngale ñoom la ñu tuddee al asariya waaye ñetti kuréel yépp nag teewul ñi ngi bokk ci mbooloom ñi ngi tënku rek ci pas-pas yi mbooloom jullit mépp bokk maase tënku bokk itam jàpp pas-pas ci ginnaaw yonent bi niñ doxale xilaafa gi ak selluk saxaaba yi ak seenu euh, maandu ci wàllu jaamu yàlla ay kuréel juddu ci ay ay ngir mooy ngir imaam Malik imaam Shafii imaam Ahmad ci wàllu tawxid ay kuréel juddu ci mooy kuréelu Junayd ak bu Bishr ak bu Maaruf al ak ak Muhaasibi ak ñeneen ñeneen waaye ñii ñëpp nag ñi ngi bokk ci biir masab al sunna wal jamaa euh, ci mbooloo mi gën a bari ci jullit yi euh, kon ci tënk daal mën nañoo wax ne euh, ñii ñëpp ay kuréel la ñu wuute waaye ñoo bokk nekk ci wenn yoon mag bi nga xam ne moom lañu tuddee masab al sunna wal jamaa kon ñu xamee ko noonu maanaam bu ñu dellu siwaatee incha allahu dañ ci gën a yokk ay leeral ba suñu bopp gën a ubbiku ci googu wet ndax sëriñ bi dañoo digal ñu tënku ci biir mazhab boobu kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa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 على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي أنعم علينا بهذه الملة الطاهرة التي لا ملة تشبهها ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا لا رب سواه يغفرها ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi ulil fadli wan nuha amma ba'du fa ya ayyuhan nas أوصيكم بتقوى الله العظيم وأحذركم الدنيا فإنها كأحلام النائم وأنتم عما قليل راحلون وإلى ربكم راجعون واستدركوا بقية عمركم فقد ذهب جلوا وانقضى وأد wa adduu maa indakum min xuquuqi al-ibaad qabla an tuuxada min xasanaatikum wa tuqdaa wa maa camiltum fa fi kitaabillahi muddaxar ilaa yawmi alqiyaama wa antum fiihaa can acmaalikum mas'uuluun yawma tashhadu fiihi alaykum alsinatukum wa aydiikum wa arjulukum bima kuntum taamaluun qaala taala faman yacmal mithqaala darratin xayran yarah wa man yacmal mithqaala darratin sharran yarah الحمد لله الذي أفاض على الوجود بحار النوال وصح على كل موجود صحائب الإفضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله بأمره داعيا وللصراط المستقيم مرشدا وهاديا وكان أشد الخلائق وأقواهم عزما صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأكابر الكرماء وأصحابه الأشداء الرحماء وأتباعهم الذين حازوا من مغنم السعادة قسما أما بعد فيا أيها الناس من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال تعالى inna allaha yuhibbul muttaqin fala sharafa lil abdi ahzamu min an yuhibbahu sayyiduhu wa mawlah faqad faaza man tabaada an taatihi ma faqad faaza man baadara ila taatihi ولزم تقواه وآثر محبته على محبة كل ما سواه وقد ولقد خاب من شغلته عن ذلك دنياه وآثر على طاعة ربه طاعة نفسه وهواه فلنستحي يا عباد الله من ربنا أن يرى أحدنا فيما يقربه إلى الله متوانيا وأن نزهد فيما ننال به محبته ونرغب في لذيذ يصير فانيا وأن ننظر إلى صغر المعصية بل لننظر إلى عظمة من نعصي ولنتذكر أن علينا حفظة تكتب ما نعمل وتحصي قال جل من قائل عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah Shabdul أنتم ربنا ولك الحمد الله non non. allahu akbar habbana lakal hamd والسلام عليكم السلام